soxna si maa ngi lay nuyu bu baax a baax di jégalu nag ndax sax soo gisee mu nekk vocal ni ndax sa boy livre dafa guddee te bëgguma leen woo euh, directement ndax guddi gi ma ne naa la envoyé vocal boo ko liiree xam ne au moins par exemple man mbégte gi ma am ci togg gi yegg na ma foo xam ne mënoo ko sa xam mais kontaan naa trop tey vraiment lekk naa digéré naa suur naa kontaan naa. xale itam kontaan nañ bu baax a baax a baax vraiment kontaan naa li ma gën a nax sax sa togg xam mooy lan est-ce que yow defoo yow est-ce que defuloo sa stage ndar parce que dama la nekk ñu naan ceebu ndar dafa muy mel te li ma lekk tey ah doo li ma gën a ne ma jën yi lakk nga ko ni nga ko war a lakk togg nga ko ni nga ko war a toggee juuli ni koy jigéen ñi di ëppale fekku la ci. parce que léegi moom souvent leneen ci nag mooy waru leen ko togg ba yéen a degré yi. wala ko doon parce que togg yéen a degré day perdre. waaye yooyee yow kii joxe na de. yenn dimension yi moom la def ci biir biir nekk. waaw waaw te ceeb comme ni ma la waxee sànq su ñorul day def indigestion. boobu la ci biir waaw waaw dégg nga xam togg est-ce que xam nga ni kii dafa xam togg bu baax. waaw ba pare en plus vocalam ça m'a fait trop plaisir. waaw daal trop je te jure. ah dégg nga dégg nga dégg nga dégg nga. comme weeru koor lañ nekk. de temps en temps su ma toogee ma koy yàkkal loo si xalaat. comme mag la en plus. yii hmm. weeru koor boo ciy joxe lekk rek moom tuyaaba googu xanaa da ma ciy sedd. loolu nga gis. <laughs> baax na. yii jànk tuyaaba ngay am. waaw. incha allah. kontaan naa si nag. ba pare dama nii. si kontaan naa dama gëj dégg xeet yooyu baax baax yooyu dama ko gëj dégg. sama kontaan nag mënoo ko mesurer parce que dépasse na fi nga yaakaar sax wala te naa la wax nag sa ceeb bi moom boo ko delloo woon non ko lekk si. <laughs> da <laughs> la bëgg. ba pare nii ceeb. ay sa nana de. maa ngi booy sa

maa ngi la gis ngay nuyoog moom bay tàppante ku ne di yuux lan la. père kii kii du dara sama sama xarit la rek. dama koy liggéeyal fekkee da koy doxaan nga wax ma. waaye la doxaan <laughs> yow yéene nga ma kii de. Eh, la naa la kii. waaye yow yow yow yow yow wér nga kii dinaa la ko yéene. ah maa yaakaar ni jongo bu mel nii. man mi nga xam livraison rek laay def ah nga bëgg ma. <laughs> Eh, bu ma la dëggate nga naan yéene naa la ko de kii duma la mas a du ma la du ma la ko mas a yéene dégg nga li ma la wax wax jooju nag nag bu ma ko déggate dégg yow looy livré. père Sénégal fii lu la fi loo bëgg rek teg ko sama loxo. caat caat lay demee. Ah. Eh, ok waaw. merci beaucoup tey damaa bëgg ñu waxtaan ma ak hmm. ndax xam nga ni Aïssa ci weeru koor la ñu ne sa col gi nga sol ci weeru koor bi xam nga ne lii jaaduwul. xam nga lan la Fall du ma solo weeru koor lañ nekk sama kër laa nekk damaa wóor ba ngoon bu ma rey wax yaa ngi may dégg. ayso même lu ñuy wax amuñu lu ñuy wax bu ma rey wax. col gi nga sol xamal na jabari kilifa nga. jabar xam nga lan la may ma ñëw may def. Eh, foo jëm ayso waaw ki fan la jëm waaw waaw man man xale bi man bu bu bu toogee man rek mel ne ay sàq lañu koy dox mel ne ay ay ay koy koy biiw ah man toog man sax wax man mënu ko waaw yow du ma la bàyyi ayso du ma la bàyyi waa ana ak soxna Aida waa. waay sama ay na waay kii na ma waay waay waay ay na waay waay ay waay ah waay ndaw si kay wax wax jot na nag. ça va. ça va bien. waaw man Moussa Gueye mi ngi fi. waaw mi ngi si biir. dis-moi <laughs> non non dis-moi franchement j'espère que tey moom juumoo. mais tey moom juumoo moom tey moom yaa ko moom yaa ko moom mu ngi noonu. te yow ku bëri wërsëg nga yow mii <laughs> macha allah ok merci beaucoup. non non non kay kay kay kay kay kay. wërsëg bi kenn dañ koy séddoo tey ñoo koy bokk. fii ngeen dogo. kaay toog fii dañuy dogo ñun. nekk benn commune. ça va na nga def ça va bien. waaw maa ngi maa ngi sant. naka liggéey bi moom. waaw ñu ngi góorgóor rek. góorgóor rek. tur tur bi moom naka la sax. ah tur bi. man Fara Fara. Fara. Fara Diaw. ay Diaw ma Diaw xool. Guèye Guèye Guèye Guèye Guèye Ndiore Basi. yow moom damay fàttali sama benn nijaay. daa feebaroon. feebar gu metti jabe da ko jàppoon. mu xëy rek ne ma nañ ànd hôpital naka lañ àndee hôpital rek médecin bi xool ko ne ko yow da ngaa jabet jabet bu jéggi dayoo sax médecin bi ne ko nag yow moom benn kuddu ceeb ngay lekk par jour <laughs> rek sama nijaay commencé ree ah, moo yéere moo di ree di ree ba hôpital bi yëpp jaaxle rek médecin bi ne ko waaye yow looy ree mu ne ko <laughs> xanaa kuddu luus lay doon <laughs> kon mu bëggee ceeb man ngay gaaral man ngay gaaral waaye na fecc ren bi tey parce que ñaawee nag ak génn fi daje dina fecc ndogalu tey yaa yaa jënd bismillah yàlla nangu nu suñu koor da su mën a togg trop mm. xadi yow sa taay dafa baax trop xanaa affaire mën a kinaay yooyu intéressé wu la yow am naa sama benn xarit boo xam mën naa la boole moom si jàppale la la moom la ndox ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk moytu moytu kaani ji da kaani ji mm. da nga lekk ci roof bi